tey ñu ngi ñëw fii ci mbambiloor am na ñaari semaine ci ginnaaw def nañu lancement bi fële euh, Rufisque tey nag dañu ñëw ci quartier yi ci préfet sous préfet département jël nag décision tey ñëw fii ci commune Mbambilor fi nga xam ne honorable moo ko jiite li li nga xam ne moom lañu def tey dinañ def commune Mbambilor lépp ba mu jeex Kañak Gorom un Gorom 2 Gorom 3 Eh, mbët waaye mbaam eh, mbéy ngenduuf yëpp dinañ ko def tey denu nord denu sud kër njaayloo kër njaayloo eh, kër daawro sarr kunun kunun un kunun ngalam cité enseignant donc loolu yëpp tey dinañ ko def suñu pare fii dinañ dem ñàgg ak Tivaouane Peulh Tivaouane Peulh dinañ dem également jaxaay suñu pare foofu peut être mënoon dugg biir mais rassurez vous ko tey toute la nuit dañ koy liggéey. mbégte mi ñu am mooy ñu tànn Bambilor muy commune bu ndaw commune bu bees mais loolu li ñu jëkk def mooy gërëm monsieur le sous-préfet mi nga xam ne tey mooy président de la république fii ci arrondissement bi bu tànnoon feneen nit ñu ànd ak moom foofu mais bu demee ba choisir commune Bambilor monsieur le préfet ci turu population commune de Bambilor vraiment ñu ngi lay gërëm ñu ngi lay sant. xoolal ñëpp toog seen i kër ñu bëgg fanaan ci àll bi ngir aar ñooñu amuñu seen pay donc major ñu ngi leen di gërëm bu baax ñu ngi leen di sant. mais li ñuy ñaan mooy ñun ñëpp dañu war a bokk ndey bokk baay c'est le moment pour que ñun ñëpp ñu joxante loxo pour lan pour xeex suñu noon bi ndax noon bi kat bu nu gañee yaakaar naa kenn amatul looy wax. parce que lii bi ñuy ñëw. ñoom région Dakar ak au niveau national di ñu jàppale. fekk na ay opération yoo xam ne le comme département bi préfet jiite. defoon nañ ko ci ci département bi yëpp. te loolu euh, major fay bi ak i ak maire yi. ñoom ñoo def loolu. parce que li ko waral. coronavirus bi la te amna lu ci euh, ñi faj wax te lolu li ci ëpp moy ñu respecter euh, distance barrière yi set parce que buñu fexé ba ñun daan virus bi mais propagation communautaire bi ngeen wax sank dotul amati ku andu te nguur gi li def yow da fay melni yow da ngay jàppale virus pour mu law te lolu dafa graw te lolu kenn war te seetaan te lolu mo expliquer yeen ñi ni ni ko maire waxe sank ngeen dagg seen lepp ñew taxaw fii te loolu suba xëy na amaana ni dina dégg ne ah mbir mi kat lan moo waral guddi gi ci biir couvre-feu bi nit ñi génn pour di pompe mhm. mbir mi am na dayu bu am boo xam ne bi bu ñu taxawul musiba dina am